léegi wuli bu loolu yëpp jeexee nag am nga combat sa diggante ak ak ak Adama Diouf bi mu taxawee léegi def na 4 mois xaw ma 5 mois Adama Diouf moom lëlu yow nag yaa ngi feeñ rek te yaa ngi kaw Kaolack suba yaa ngi cees ba sa papa bi nga tuddee doom Gaston Mbengue nee na nga delloo avance bi ndax combat boobu amoo chance dañ lay daan. waa xam nga tey maa ngi Thiès suba maa ngi Kaolack liggéey la quoi sant aussi Lamine Samba sama patron sama xarit maa ngi koy sant bu TFM sama tête de fil Lamine Samba di sant Mao Cissé di sant waa TFM yëpp comprendre keroog ñoo dem ci bi Birane Ndour xaytu këjëb Birane ne ma sa liggéey gis naa ko gis naa ko ne ma Youssou Ndour kontaan ci liggéey bi ne wax ma ne ma neena na danga koy def nii ak nii ak nii xam loo am solo hmm. tey bu ma nekkee mbër ba pare nekkaat reporter comme yéen sant na yàlla. Gaston Mbengue aussi sama papa la. sama père la mais damaa am combat ak Adama Diouf ma jot avance ma wax ak sama moroom gor te gor ca wax ja man gor laa wax dëggu si yàlla xa même bu ma doon dee du ma jot avance te du ma dee sax. parce que Gaston sama papa la doon. Ah. moo ma joxoon Sa Thiès xanaa moom ba ma jox Sa Thiès xam nga ne mën. Ah. mu xam ko bëri ah Gaston moom itam jox ma Sa Thiès fay ma cent cinquante mille deux mille neuf. lay wax nii fanweeri dama dóoma dóor yu jar cinq millions comprendre nga nu jox ma Adama Diouf mu damay bëre parce que Sa Thiès moo gën a dansé Adama Diouf. ko delloo tey du ko delloo suba Diouf xëy na moom xamuma mais man xam na sama bopp xam naa ne Adama Diouf mën naa ko daan. ku bëreeg Sa Thiès bëreeg Tidiane Faye bëreeg Thiat bëreeg Yékini Junior Adama Diouf jaaxal la c'est que Adama Diouf bu bu ñu fàttee ñaari victoire la am ci lamb ji waaw ah, man ku am ñaari victoire dina ragal te Basirou Kam yi jël na engagement ne na ma lu ci war dinaa ko def te nag buy fàtte ne pol la de te waa woon pol pol yëpp a ñëw takkuwaay yi moom na Bassirou bu jëlee engagement damay nangu. Gaston damay bëre sama papa nga nag wax dëggu si mais Bassirou kam mii jox naa ko sama bakkantu nee na ma combat bi tam bakkanam day teg. Gaston nee na boo ko delloowul daal. Gaston xamul daa xam gul gul kuy daal déet. moom teg. non fi mu ko teg mooy xeeb xeeb ma. Ah, xeeb ah loolu laa mën a wax. parce que mu ne Adama Diouf moo la mën mais pourquoi pas moom mu ne ma moo mën te moom mu joxe ma Sa Thiès laa wax. mais wulli ma bëre ak ñoom itam Adama Diouf bii. est-ce que wulli bi sa gën dal xel. wulli bii man de wulli bii. bii wulli. am basiru am terrain sama xel daal moo gën a neex wulli ba mu nekk Sa Thiès ma koy koy cent cinquante mille. am papi général ki mu un million ak quelque. papi général ah. bi Gaston waxee. Mm-hmm. Gaston bi bi mu waxee. Mm-hmm. papi général dafa ma wóor ci guddi gi. Mm-hmm. na ma doo jëlal avance bi. combat bi sama combat tu maa lay andi stade. Hmm? papi général wax mu ne ma doo jëlal avance bi. parce que Gaston li mu li mu foog parce que ndeysaan dafa am ci ma yërmande pëm bu ma Adama Diouf moo ëpp Serigne moo ëpp nagam ëpp ma Serigne. Bassirou Ka am na ay pël moom séeréer la man séeréer laa man man am naa séeréer yi am naa ay pël. Diouf la sant Diouf la sant Diouf la sant papi général. maam ministre papi lu lu indi ma yàq ko waaw papi général nee ma man maa lay andi stade nëbbuwuma laquma séeréer nga comme moom te yow laa xam. te Adama Diouf nag ñëpp xam xaar ko ne dama koy dóor ba mu tëdd gaaw Bassirou Kaafi pël yaa ngi fi de bas te am pël bu fa benn pël des am na bi benn sa tànk la jëm tëdd lay naan barke Serigne Bamba mun ni ni ngi kañ fii ni prime pël da koy defar ni ni laal suuf 4 at wala kuus kuus kandal. que du ma wut kuus tega ko ci kanamam. du ma gis. dégg <laughs> ma gis mais nag di sant Lamine di sant waa Sénégal gépp di xamal ne aussi ba Bassirou Kami nañu ko jàppale. sama supporter yi nekk Sénégal ak ñu nekk ci ku ci bëgg kër gu wóor laa wax parce que nekk bitim réew. jox sa mag xaalis pour mu lay jëndal kër wóoru kat da koy lekk jox sa mag kër ay ginnaaw la koy jëndee jabaram takk ci ñaareel yow ngay liggéey ca bitim réew moom mu takk fii ñaareel dugg naa daat nga laaj bu sa kër mën naa laa tey ak suba ku jox sa nijaay kër yumpañ lay takkalaat yumpañ bi ndaw lay takkal ah. dugg naa daat balaa caal nga woote Bassirou Kamil jox ko mu tal kër amul caaxaan xam nga man li ma ko gëmee ku gëm Serigne Touba doo caaxaan parce que doo wax mu ne Serigne Touba ku gëm Serigne Touba gëm maam El Hadj Malick gëm suñu kilifa diine yi maanaam ku ku leen gëm dëgg doo njublaan bari que sëñ ma ku fi nekk bitim réew Italie Espagne France États-Unis jox sama kër. jabar la la koy takke ñooñu nekk na ñu ñëw ci Bassirou Kami woo ko mu jox kër yu baax. man xam naa ko ku bëgg a woote. na def sosa 33. Euh, 33 ngay def 878. 65 35. ma ne jël leen numéro baax bi double zéro 221 ñu ne Europe double zéro 221. 33 878. 65. 35 Basirou Ka jox la kër gu wóor mën na la ko jaay tabaxal la ko ba mu pare mu ñu jox si kële kenn joxatul sa mbokk mbokk yi nag waxuma ñëpp mais ñu bari joxatul seen mbokk kër parce que nekk bitim réew séddaay bi di liggéey bëgg kër nga nekk Dakar ñu jox la xaay nga takk ko jabar mën naa ñàkk <laughs> woote leen ci Ka mi Touba madinatul njurul immobilier mu ngi ci Kër Massar woo na du toto gaaw na Lac Rose laa am man Lac Rose laa am Lamine Lac Rose yow dama laa war a sori parce que vraiment rek Rose teg géej li ma gën a neex sëriñ Saliou laa tudd moom mu bëgg sëñ Saliou sëñ Saalum mu sama turandoo ñu tudde ma ko mm. ma ko doon ma demoon fa ñetti combat yi nga xam ne bi muy mujj a làqu ñetti combat yi yi ma fa dem yëpp ñaana ma dama daan mm. ba ma fa jógee laa jëkk a wax wulli baatim boobu topp ma macha allah mm. kon Basiru ka ku baax la yéen a baax yéen a gore